ak benteñe ndeysaan benteñe ngi noonu moo jóge Fass doomu Kër Mbay Fall ngoogu moo jóge Kër Mbay Fall deuxième combat de la soirée organisé par Yaram Art mbokk yi deuxième de la soirée ngi noonu ci biir géew bi diggante ki nga xam ne mooy doomu kër Mbay Fall ak Benteñe génn na lan lay jëli mu ngi defaraat ngemb bi ndeysaan doomu kër Mbay Fall pare na moom mu ngi ci digg géew bi bente i génn na saaku yi ñuy defaraat ngemb li saan am na fas bu mu takk ci ndigg li moom la ñuy tekki doomu kër Mbay Fall ma ngay wax ak coach doomu kër ngay wax ak coach mu ngi koy naan na tey te ànd ak dal jëlal sa temps làmb ji yaay diriger bente ñi mu ngay defaraat ngemb li deuxième combat de la soirée. allo allo. doomu Kër Mbaye Fall ay waay daa bëgg tiital benn teñee mu ngi koy wan ne dama nekk ci état. ma wër géew bi. doomu kër Mbay Fall waaw benteñe est-ce que nekkul tam sa kër nga waroon ngemboo benteñe yaa ngi yàggal làmb ji de mais benn xanaa ngembali da cee dugal da cee dugal da cee la tekki di ko defaraat kenn xamul lan mooy problème bi doomu kër Mbaye Fall moom pare na bu yàgg mu ci digg géew bi di ko xaar mais lii du yoon ngemb sa kër nga koy defee doo ko ñëw mais doo ñëw bay sàddi ngemb. arbitre yi ñoo ne ko na defar ngembal waaye moom lim ngemb woon baax na mais arbitre ñoo ne ko na defar ngembam loolu mooy problème bi SBT la. du nuyu diaspora bu baax a baax macha allah. chers fidèles téléspectateurs yéen ngi seen chaîne bu mag bi SBT Média nee naa ko li ngeen bëgg ci làmb ñoo leen koy jox de leen bës cloche bu rouge bi di abonné di topp suñuy commandé sànn benteñee doomu kër Mbay Fall benteñee wàññi la ngemb li wàññi na quelques morceaux si ngemb li arbitre ñoo ne ko ne defaraat ngemb li non benteñee la mu ngemboo daa ëpp. xoolal ci ginnaaw kenn xamul lan la baa du xar la ci dugal. xar du xar la dugal ci ngemb li. doomu kër Mbay Fall benteñee benteñee ngemb li est du xar la ci dugal. ndeysaan mbokk yi fii si arène nationale. grand combat combat spécial bi day dox si diggante Gora Fine ak waaye beneen combat spécial bi neuvième combat bi Thiatou mooy drapeau waaye ki nga xam ne mooy Caatu Jolof ca Ndeela dinañ fi laale ndeysaan yaaram Baare Vinci li mu def xamu ko bu mu monté rek mat na grand combat ndeysaan drapeau si moom mooy Papa Yane Tey la arbitre baa ngi wax ñoom doomu kër Mbaye Fall moo di wan ginnaaw. doomu kër Mbaye Fall moo ngeen boo ngeen bulu bulo li moom moo wane ginnaaw benn tëñee moom ngeen jàkkaar loolu moo ngeen boo ngeen bulu noir li. arbitre baa ngi laaj assistant yi ba xam pare nañ. ndeysaan. arbitre siffle na. doomu Kër Mbaye Fall moo féetee seen ndeyjoor. Yaxya bu Kër Mbaye Fall dafa bàyyi daan na jël bu rëy fan yi ñu génn. waaw Yaxya doomu Ndem dafa bàyyi moo féetee seen càmmoñ. doomu Kër Mbaye Fall Bente Ndié. jeu technique borom Kër Mbaye Fall ñu ngi lay nuyu. boucher numéro 2. xale jàppante nañu. doomu Kër Mbaye Fall ñaari loxoom yëpp jàpp na ngemb. xamante ni tamit jàpp na ku nekk jàpp nga ku nekk jàpp morom. ñaari mbir la ñu waxante woon nañu bokku de. laa ilaaha illallaah Bente Dieng. Bente daan na ko. ay waay daan na ko. ay waay doole doxul jàmmul. laa ilaaha illallaah. ku ko mën ku koy jéem bokkul. doomu kër Mbaye Fall du courage. ay waay Bente Dieng daan na doomu kër Mbaye Fall.

waaw noo lay fay. lii mbër nga defaraat ngeen. non moo bëri la xam ne mbokk yi rek. est-ce nekk si. <laughs> mais li nga bëri lan la ma jàngal bëri sama sama di ñaan yàlla may bu la mën a bu Fass. di ñaan yàlla yàlla doon doon yóbbu. xam naa ne di sant waa Fass bu baax a baax di sant ñoom ànd ñëw béykat ay soose di ñaanal Ada Fass yàlla ko yàlla mën dem métti Thiatou Fass yi bés yàlla ko yàlla mën dem fan nga jëm instant su këram rek kan ngay xaar ku ñëw baax na amul kenn koy nee non non li mu def sama morom rek ba hmm. Serigne Touba bay naa la mais Zo lan moo tax ngay masqué lu tax ngay nëbbatu ah dañ maa interdit wax dañ maa interdit wax waaw tey loo indee boucher de tax dañoo gis bëri bi mu bëri doy na waar noo ko yabee waaw ñun bëre la ñuy liggéey ah. mais jour yi namm nañ la foo ne. yi non sant ba ca xaalisu promoteur rek. promoteur yi bu ñu génnee xaalis léegi ngeen gis ma. mais instant yii kan moo nekk sa amul kenn koy nelawaale. déedéet. su yow man li ma jaaxal yow da bëri te bu ñu waxee nga ne làmb ji xamoo mbëri. looloo tax ma ñëw fii tey. Hmm. waaw. kon instant yi mbëri bu la kenn rombee amul koo ci xam. non grand combat bi moom laa jot a xam. waaw. mais yaram bi waaye di woon ba léegi dañ na. ba léegi daa waaye di. Hmm. waaw. soo ba léegi yaram bi daa waaye waaw. Hmm. waaw. Albouri sa doom da yaa ngi koy dégg. déedéet dégguma ko de. Hmm. dégg mais zo yaa ngi ñaaj waaw borom reefan. waaw. combat la. nga nii jox leen ma Ndiaye waay. waaye yow léegi moom gis nga Ndiaye bëgg nga. waaw bëgg naa Ndiaye kay. léegi rek <laughs> waaw wax ko pare naa pour jël sa waaw Ndiaye pare naa pour jël sa avance. mais soo temps yi dégg naa am nga xale booy képp de. xanaa yaa ma ko jox. ah yow am nga xale booy képp. xanaa yaa ko jox. Boucher 2 moo ma wax de. Boucher 2 dafa seytaane rek wóoru ko de. da lay sosal. day tuumal kay. waaw li lay tuumal. waaw waaw yaram bi yàlla na waaye bi dañ dégg waaw. Ndiaye Tine nii lañ. nan laa ko daane. ñu gis fan yi nga jógee si làmb ju mag yàlla may la ndam nga ñëwee sax kan nga andi. waaw siyaar naa la tey dama andi sama sama xarit sama doomu ndey candee la di ñaan yàlla ànd moom. candee la mi war a bëree caatu jolof. waaw moom la waaw. instant kan moo nekk kanam. waaw bari na pongol yi ci sama kanam bari nañu. comme ñan. bari nañu bari ñaar ñi tey ku ñu tàggaloo bëgg naa grand combat. waaw dafa am mbër Gamou Gueye. ak grand combat suba bi. Hmm. waaw ku ci daan bëgg ku ci daan. par ku la jox avance ñàkk jaariñu di nga ko jël. bëre wala digal digal ak yenn daw moom waxul ci waxi jaay dara moo waxal boppam yéen nga ne bërew na anjaay tin non pare naa man pare naa waaw la ku mu teg ci taabal ji rek mooy loolu ci yow kan ngay laaj Youssou Ndour lay bëre maay entraîneur Youssou Ndour wala ndigal mii ñi mel na léegi avance Youssou Ndour mais man dama bëgg moom ndigal ci moom ndigal mu eh ndigal eh. fan. non bërëbu maag bëgg bërëbu maag ndigal Youssou moom moom laa bëral. bërëbu ak ndigal. ay mbokk ngeen ne ay mbokk ay la sama doom bàjjal la. xamu ko ko amee naa ko. feeñee affaire yi day yàqu de ndax man dal naa këram ree fan. non noonu la demee nag. xamee nga nga ma. no non non xam naa. sa kër ñaari fan de gaamu fan. looy wax lii ah kon. delloo ma tafaatin. waaw dinaa la ko ah, naa la. mën na waajee say mbokk. waaw ah, dara yàlla ma ndam rek. waaw nga jóge si combat boo xam ne macha allah yàlla may la ndam tey ngay taseeg au sud doomu yaraax bi noo ko waaj. dara di ñaan yàlla may ma ndam rek. ndeysaan nee na ñaan yàlla. laay lii la laa ndeysaan ma ngay saraxee <laughs> mais mbër nuyu naa la. maa lay fay maa lay fay noo waajal say mbokk. waaw pare naa saa pare naa. ndeysaan <laughs> waaw dafay taamu pom ak banaana. orange. moom daa taamu nee na pom banaana orange ndeysaan. mbër la wax saa doo seer. maa lay fay. ana lan ngay indi ana say supporter. dal rek dal rek dal rek. sa sa sa adversaire nee na arbitre wàcce loxo moo la fi bàyyi. dama koy dugg dama koy daal léegi du yàgg dara. ani say supporter mbër tey lan nga indi. pare naa pare. ndeysaan mu ngi noonu. mbër maa ngay saraxe ndeysaan. ma ngay saani banaana ba ak pomme bi ndeysaan mbër maa ngi saraxe oh. ndeysaan mbër maa ngay saraxe pomme banana <laughs> orange ndeysaan mais jàmbaar nuyu naa la. sarax yi nu mu demee sarax mbër maa ngay saraxe. ay rabu tubaab ngeen yor de banana ak pomme di saraxe. banana rabu tubaab dafa am rabu nii. noo leen waajalee seen mbër. mbër bi pare na. seen adversaire loxo moo fi bàyyi. ndeysaan ba tey mbër maa ngi saraxee laay leena laaw mbër mi ay rabu tubaab la yor mbër mi ay rabu tubaab la yor ndeysaan ma lay saraxee paquet suukar yi ah mbër maa lay saraxee suukar si mbër mbër maa lay mbër maa ngay saraxe suukar yi mbër saraxe xanaa journaliste yi boo xulus mbër ba sarax dama mbër lu sarax dama ndeysaan mbër baa ngay sarax ay ñun fu ñu jëm mbër baa ngay saraxe suukar ndeysaan ñi ay rabu tubaab la ñam ay rabu VIP moom la mbër mu yore ndeysaan Tapha Mbeur ngay waaj a sa wàll. cinquième combat de la soirée diggante ki nga xam ne mooy Petit Baye Fall numéro 2 ak Talla Gaynde. Petit Baye Fall a ngi noonu. Gaynde. cinquième combat de la soirée. vingt 24 décembre 2022 organisé par Yaram Art Events ndeysaan ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi Petit Baye Fall numéro 2 Talla Gaynde arbitre baa ngay xool Petit Baye Fall Talla Gaynde moom ngeen jàkkaarlool Petit Baye Fall moom moo féetee seen càmmoñ

arbitre sifflé na Talla Gaindé moo féetee seen ndeyjoor Petit Baye Fall moo féetee seen càmmoñ Talla Gaindé dóor na Petit Baye Fall ba kawo du am xale yaa ngay xeex ba kawo du am laa ilaaha illallaah eh oh Petit Baye Fall lii lan la Talla Gaindé Petit Talla Gaindé ngay dóor Talla Gaindé ngay dóor Petit Baye Fall laa ilaaha illallaah ay lamb ay lamb petit Baye Fall daan na Talla Gaynde lamb day soppaleeku Talla Gaynde door na petit Baye Fall ba mu kaawoo waaye kaawoo daa mujjee tourné ndeysaan petit Baye Fall daan na Talla Gaynde jël bu amul benn werante petit Baye Fall fu mu jëmee 16 bi 16 bi fan la jëm fu 16 bi jëm. Talla Gaindé du courage laa ma gi noonu. Talla courage mbër nga.